wal ma'muum baabun li ab buntu la bu lay biral bu lay leeralal fil imaamati ci atteb imaam wa xukmil imaami maanaam fil imamati ci atteb njiit laa wax imaama imaama mooy li wa xukmil imaami ak atteb imaam wal ma'muumi ak ki ñuy jiite jëmmi njiit nan lay maanaam ak jiite nan lañ koy xamee nan lañ koy tànnee ak lan mooy ak jiite da lay jàngal ba pare nag ki war a jiite muy imaam bi atteem moom tamit waaye ki muy jiite muy almamuum mooy ki ñuy jiite atteem moom tamit ci biir julli mu ne waya ummu dana jiite wala sopp nañ mu jiite annaasa nit ñi loolu dañ ko sopp wa sopp nañ ya umm mu jiite annaasa nit ñi mm-hmm. afdaluhum ki gën ci ñoom mm-hmm. bu ñu waxee ki gën ci ñoom nag nekkul ki gën ci ñoom juddu mm-hmm. wala ki gën ci ñoom askan wala ki ëpp ci ñoom daraja déedéet wala ki nit ñi jàpp ne moo ëpp daraja noonu rek waaye lislaam moo naan kii moo gën looloo nag mooy lan mooy ka gën a kañ gën a xamee topp yàlla yi def ndigal yi ak bàyyi tere yi rek waaw ki ëpp ci ñoom diine daal kooku mooy afdaluhum wa afqahuhum ak ka ëpp ci ñoom feq ka ëpp ci ñoom fekk moo tax am na xadis bu rot buy wax ne aimmatukum shufaaukum faxtaaru bi man tastashfaun waaw mu ne seen njiit yi imam imam ab sha ab shafia la wala ab shafia maanaam day ramm ramm nit ñi maanaam mooy tiinu nit ñi ab imam moo tax lu am doole la ak imaama dañ naan al imaamatu mooy al shafaatu ak imaamatu ak ràmmlu rek moo tax du caaxaan bu ñuy tànn ak imaam ka ñuy tànn mooy koo xam ne moo war a ràmm nit ñi mooy sauver leen ci seen mbiri diin kon kooku du mbiri caaxaan kon mu ne afqahuum ka ëpp ci ñoom fiq moom kon xadis bi day wax ne ay aimmatukum seeni njiit shufaaukum ñooy ñi leen di tinu mooy ñi leen di tinu lan ci tàbbi ci yoonu alkande waaye di leen tinu di leen dugal ci yoonu mbaax yoonu diine mu ne kon comme ñooy seeni shufaa ñooy ñi leen di ràmm waxul ràmm yowmal qiyaam waaye ñooy ñi leen di tinu rek di leen sauver fii ci àdduna kon nak comme loolu noonu la amé solo tan, na ngeen tan bi man ca ñinga xamné tas tashfauna da ngeen sakku ci ñom tinu kon ki nga xamné ni mom da ngay sakku pour mu tinu la pour mu sauver la fi ci aduna tek la ci yoonu mbax kon nak ko dang nga wara tan bu baax parce que bu sanko nga sank kooku daa war a daa war ci yoonu moo mu ne waya um sopu nañ mu nit ñi afdaluhum ke gën ci ñom ta moy ke ëpp diiné ci ñom wa afqahum parce que nit mën naa ëpp diine ba pare te du am feq mhm. mooy koo xam ne jaamu katab yàlla waaye nekkul boroom xam-xam kon dañuy tànn boroom xam-xam bi waaye toppkatu yàlla waaw nit mën naa am xam-xam ba pare dëng mhm. waaw nit mën naa loolu yëpp dafa jar a bàyyi xel mhm. moo tax mu ne am na beneen xabar bu ñëw di wax ne in aradtum an tuqbila salaatakum falyaumakum falyaummukum xiyaarukum mu ne nag bu ngeen bëggee julli na ngeen na leen jiite seeni tànneef mooy ñu gën a baax ci yéen waaw ñu gën a baax ci yéen kon mu ne li jiitu mooy dañuy jiital al afqahu maanaam ki gën a dégg fiq ak ki gën a baax ba dem mu ne wala ta umm di jiite almaratu jigéen fii faridatin ci jullik farata wala naafilatin du caageen jullik naafila laa rijaalan déet ay góor wala nisaan déet ay jigéen kon jigéen du jiite du moroomi góoram du moroomi jigéenam ci madhab imam malik rahimahullahu taala jigéen du jiite ngir lan xadis boo xam ne ni yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne lan yufliha qawmun walaw amar wallaw amrahum imraatan mu ne aw nit du ñu du ñu texe mukk ñoo xam ne dañoo tànn ak jigéen mu jiite seeni mbir waaw dafa am xadis bu rot di wax ne inna kunna naaqisaatu aqlin wa diin yéen de da ngeen a manqué ci wàllu xel ak ci wàllu diine donte loolu borom xam-xam yi dañ ci indi ak yaatal ci wàllu aql googu moo tax benn waykat di wax ne ida kaana amru nnaasi inda ajuzihimu fala budda an yalquna kulla saburi mu ne ida kaana bu nekkee amru naasi mbiru nit ñi ànda ajuusi yi fa seen a màgget mooy kañ jël tànn ko am mag mu jigéen la mu féetewoo seen mbir mu ne xamal ne danañ tase ak alkande danañ tàbbi ci alkande ndaxte jigéen daa bëri lu koy gaar ak lu koy gàllankoor ak ni ko borom bi subhaanahu wa taala bindee moo tax mu ne jigéen du jiite ci jullik farata du jiite ci jullik naafila laa rijaalan wala nisaan loolu moom ci mazhab imam malik rahimahullah mu ne wa yaqra'u dana jàng maal imaami ànd ak imam fii ma ci la nga xam ne yusirru dana ko yalu wala yaqaraw te du jàng maaw ànd ak moom fii ma ci la nga xam ne yajharu dana ko biral maanaam ma'muum lay wax mu ne sib nañ ma ma'muum bi muy jàng ànd ak imaam ci li imaam di biral waaye nag bu dee julli yalu la moom sopp nañ sax ma'muum bi daal di jàng waaye bu jàngul tamit julleem moo tax mu ne wa yaqarawu sopp nañ mu jàng moom ma'muum bi maal imaam yi ànd fii ma ci julli ga nga xam ne yusiru dana yalu fii ci moom ci ay julli waaye wala yaqaraw du jàng mooy sib nañ rek daganut muy jàng moom amu maawu ànd ak imaam fii ma ci julli goo xam ne yejaru dana biral fii ci moom kon lëggan mooy mu sellan mu cet mu li ñuy tuddee cellantal déglu bàyyi xel yàlla mu ñuy wax ne wa ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun mu daal di ci teg mu ne wa man adraka ku jot na rakaatan ab rakan fa aksara ba lu ko ëpp fa qad adraka jot na aljamaata ngëneelal mbooloo aljamaata ngëneelal mbooloo mm-hmm. boo amee benn rakaa rek jot nga ngëneelal mbooloo mm-hmm. kon soxla woo boo gisoon am mbooloo di julliwaat ngay dem di baamuwaat ak julli kon jot nga ngëneelal mbooloo te ngëneelal mbooloo wax nañ ko jullik mbooloo moo gën lu baree bari yoon li nga xam ne mooy julli kenn ci ay ngëneel kon mu lay xamal ne nag boo xasee jot benn rakka rek jot nga ngëneel mbooloo te rakka ba na koy jotee mooy nga fekkee njëkk fasug maanaam rakka bu mujj ba bu fekkee fekk nga imaam siggéegul ci rakka ba rek yow nga mën fay kabar kabaru xarmal fekk ko ci rakka ba ca rukon ba kon bu boobaa yow jot nga rakka boobu mhm. fal yaqdi mu ne na fay nag moom maamum baada salaamil imaam yi gannaaw sëlmalab imaam ba maa faatahu la ko faat ala naxwi ma ca kem la nga xam ne faala def na ko al imaamu imaam ja fil qiraati ca jàng ya wa amma fil qiyaami ndaal ci taxaw gi nag wal juluusi ak jékki gi mooy toogaay bi fa fialuhu jëfam moom mamuum bi nga xam ne imaam da koo raw ka fialil baani comme jëfi aji jokk la almusalli kay aji julli waxdahu moom kott waxdahu moom kese mu ne nag bu fekkee ne ma maamum bi dafa ñëw jot benn rakan xam nga daf laa wax ne la boo jotee benn rakan rek am nga ngëneelal mbooloo mm-hmm. kon foofu dalaa wax ne nit ki benn rakan la jot léegi nag comme benn rakan nga jot te am nga ngëneelal mbooloo mm-hmm. léegi li la imaam rawee moom nooy def moom lay wax ne la bu imaam sëlmalee mm-hmm. li la imaam rawee woon nga daal di jóg daal di koy fay jàng ya na ko imaam jàngee woon noonu nga koy jàngee waaye nag lii di taxawaay ak jotaay ya yow mel ni nit koo xam ne ni day jokk ci biir julli kuy julli moom kese fa fialuhu ka fiali lbaani almusalli waxdahu léegi nit ki ñëw na fekk imam di julli julli timis masala mu jot benn raka mooy dernier rakkaam babun fil imamati lañ ko babun fil imamati baabun fil imaamati wa xukmi limaami wal mamuumi mu ne bu fekkee dangaa ñëw masalan exemple bi mooy julli timis nga ñëw fekk am benn rakka dernier rakka ba nga am léegi yow kon ñaar yi la imaam rawee mooy ñaar yi nga xam ne ñoo jiitu dañ war koo biral léegi bu imaam sëlmalee am nga benn yow léegi da ngay jóg boo jógee da ngay indi premier rakka ba bala imaam rawee woon nga jàng faatiya aku saar mu xaw a gën a gudd tuuti nga daal di toog la la imaam rawe woon jàng ya na la ko imaam rawee woon rek noonu ngay fayee jàng ya mhm. waaye jëf yi nag moom day wuute léegi bu boobaa yow nga daal di toogaat foofu parce que foofu mooy sa ñaareel boo indee benn biréel ba nga daal di toog léegi amagum nga benn mooy bu mujj ba ba nga ànd ak imaam ak première ba nga dabu nga daal di toog parce que foofu mooy sa ñaareel mhm. ba nga toogee nga taaya mhm. daal di jógaat ba nga jógaatee nga door a indiwaat beneen rakkaan nga xam ne yow mooy nekk sa deuxième raka parce que sa mujj ba moom jàll la li ngay fay mooy yu jiitu ya yu jiitu ya moom ngay fay léegi booba nga daal di indiwaat faatiha ci biral ak saar woo ko gën a gàtt tuuti nga daal di toogaat daal di sëlmal bu doon jullit tisbaar tamit noonu ngay def masalan tey jullit tisbaar imaam rawee ñëw nga am benn benn rakka léegi nga daal di jóg kon imaam faat na la ñaari rakkaam yu njëkk yi nga xam ne da nga ciy jàng faate aku saar yooyu ñoo la ak benn rakka boo xam ne fatiha kese nga ci war a jàng léegi boo jógee comme am nga dernier rakka boo xam ne ànd nga ko imam muy fatiha kese léegi boo jógee da ngay tàmbali doo tegaat benn bu fatiha de waaye da ngay jëli première rakka ba parce que imaam ñett la la rawee première bi ak deuxième bi ak troisième bi léegi bu yow bu bu mujj bi nga am kon booy fay dangay tàmbalee ca première bi mooy nga jàng fatiha aku saar boo jàngee fatiha aku saar daal di toog muy sa ñaareelu rakka ba nga toogee taaya nga daal di war a jógaat nag jàngaat tamit faatiha aku saar boo jàngaatee faatiha aku saar door a indiwaat nag beneen boo xamante ne mooy nekk sëbu mujj te boobu faatiha kese nga ciy jàng mm-hmm. kon noonu lañ koy fayee moo tax mu ne booy fay ni la imaam rawee kaddu ya wax ya noonu nga koy fayee waaye nag jëf yi moom yow sa mbiri bopp la boobaa tënkootoo ci imaam sa ñaareel moom ngay xool foo war a toogee taaya ak foo warta toogee loolu ci sa bopp lay dépendre waaye nag ne imaam jàngee woon rek ngay jànge mm-hmm. ndaal taxaway ba nak wala sax liko ko daf ne fal yaqdina fay baada salaamil imaam yi gannaaw al imam bi ma faatawu lako ko faat ala nax ala nahwi ma faala kem nam ko defee woon al imam imaam ba fil qiraati ca jàng ya wa amma fil qiyam ndaal ci taxaway wal julus ak jékki moy toga yi fa fi'luhu jëfam mom mamum biñ raw ke fialil bani kum jëfi aji jokula la almusalli mooy koo xam ne dafa ñëw di jokk almusalli ki aji julli wax daw moom kon legi topoto ben imam mune waman wa salla ku julli wahdahu mom kottu falo ñel nako an yuida mubamu waman wa salla ku julli wahdahu mom kottu falo manam sopu na ñel ko an yuida mubamu baamu nak ci ma'mum waye mën ta nek imam fil jamaati ci mbolo lil fadli ngir am nga neleel mbooloo fii dalika ci loolu illal maghriba maanaam ci jullik mbooloo googu noonu illal maghriba ba mu des timis ndaxte wax nañ ni lii di julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay daraja gënee na ko ko ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay daraja maanaam daraja yooyu liñ ci nam mooy maanaam comme julli rek maanaam comme tey benn julli bi nga julli dafa mel ni boo ko jullee ci mbooloo tiyaabooy ñaar fukki julli ak juróom-ñaar ki julli ci mbooloo ëppale na ko ko julli moom képp moo tax mu ne ki julli moom kottu ba man salla ki xam ne dafa julli wax doo moom kottu fa loo sopp na ñeel ko an da mu baamuwaat julli googu mu julli woon fil jamaati ci julli mbooloo wala fil jamaati ci mbooloo lil fatli ngir am gëneelal mbooloo fii daalika ci julli googu illa al ba mu des timis daa moom kottu timis moom kenn du ko baamu ndaxte julli bëccëg yi dañoo bëgg mu tool te timis boo ko julli woon ñett yow kott demaat waat ko ci mbooloo léegi toolatul kon bu boobaa julli nga tisbaar ñeent julli nga tàkkusaan ñeent julli nga timis juróom-benn kon tóol ga amatu ci loolu moo tax yépp danañ ko baamu sof timis waaw mu ne waman adraka ku jot na rakaatan ab raka fa aksara ba lu ko ëpp min salaatil jamaati ci jullig mbooloo fala yuiduha du ko baamu fii salaatin fii jamaatin ci mbooloo kon boobaa daganut am na sax ñu ne dafa xaraam ba boobaa nga koy baamuwaat ci geneen ak mbooloo jot nga ab abraka waxoon nañ ne ku jot abraka jot na nga leen mbooloo kon bu fekkee ne nag li nga jot matul raka moom mën ngaa baamuwaat waaye boo xasee jot ab raka wala lu ko ëpp mu ne bu boobaa daganatul ngay baamuwaat julli googa nga julli woon ci mbooloo di ko baamuwaat feneen mm-hmm. wa man lam yudrik ku jotul nag illa tashahuda lu dul ab taaya mm-hmm. awi sujuuda wala ab sujuud mm-hmm. fa loo dagan na ñeel ko an yuida mu baamu wala sopp nañ sax fa sopp na ñeel ko an yuida mu baamu fii jamaatin ci mbooloo yow ab taaye maanaam da ngaa ñëw fekk imaam nekk ci dernière taaye wala nga fekk ko ci dernière sujjóot wala nga fekk mu siggi ci rokon ba pare bu mujj bi kon bu baa yow sopp nañ nga dem baa mujj ndaxte jotoo nga ne leen mbooloo mu ne war rajulu waaye alwaaxidu kay kenn maal imaami ànd ak imaam yaquumu dana taxaw an yamini ci ndey jooram wa yaquumu dana taxaw ar rajulaani ñaari waay mooy ñaari góor fa aksaru wala ko ëpp xalfawu ca ginnaaw imaam bu dee yow ak imaam la mu ne kon bu boobaa yéen ñaar na ngeen tolloo waaye nag yow na ko xaw a xëcc tuuti maanaam yéenay tolloo da ngay taxaw ci wetam waaye imaam xaw jiitu tuuti ceti baaraam kon yow bu ko jiitu bu dee nag ñaar ngeen na ngeen taxaw ci ginnaaw imaam fa in kaanat bu nekkee imraatun jigéen maawuma ànd ak imaam bi ak waa jooju xaamat na taxaw moom jigéen nga xalfahuma ci seen war rajul xam war rajul waaw wax naa ko wa rajulu waaye alwaahidu kay kenn wa rajulu góor alwaahidu kay kenn maa al imaam yi ànd ak imam mm-hmm. yaqumu day taxaw an yaminihi ca ndeyjoori imam moom laa wax mu xaw koo arrière tuuti nag mm-hmm. waaar wa yaqumu dana taxaw ar rajulaani ñaari góor fa aksaru ba lu ko ëpp xal xalfahu ca ginnaaw imam mm-hmm. bu dee góor ñi mat nañ ñaar wala lu féete kaw ñaar rek parce que mbooloo ci ñaar lay commencé bu fekkee mën nañ ñaar bu boobaa ak imam imam bi taxaw ca kanam ñaari góor ñi taxaw ci ginnaaw léegi nag bu fekkee dafa fa in kaanat bu nekkee imraatun jigéen maahuma ànd ak ñoom ñaar xaamat na taxaw moom jigéen nga xalfawuma ci ginnaaw ñoom ñaar wa in bu nekkee maahuma ànd ak ñoom ñaar rajulun góor salla na julli an yaminil imaami ca ndeyjoori imaam ba wal maraatu jigéen nga xalfawuma ca seen ginnaaw ñoom ñaar foofu li muy wax mooy bu fekkee ne ak jigéen dafa ànd ak ñaari góor ñooñu maanaam ñaari góor la ak imaam bu boobaa mu ne ñaari góor ñi nañ taxaw ci ginnaaw imaam jigéen nga taxaw ci seen ginnaaw ñoom ñaari góor ñi wa in kaana bu fekkee nag dafa nekk maawuma ànd ak ñoom ñaar maawuma googu noonu mu ci nam maal imaami wal nag ku imaam bi ak ku jigéen ki la wax bu nekkee wa in bu nekkee maawuma ànd ak imaam bi ak ndaw si rajulun beneen waay sallaa na julli an yaminil imaami ca ndeyjoori imaam ba wal mar'atu jigéen nga xalfahuma ci seen ginnaaw foofu boo deful ndànk maawuma googu mën nga cee jiw fekk namut ci ñaari góor ñooñu mu waxoon waaye maawuma foofu xam nga li muy tegtale mooy imaam moo fi nekk ak ku jigéen ki imaam ak ku jigéen ki léegi beneen waay ñëw yokku ci kon bu boobaa ku jigéen ki na dem ci ginnaaw waaye ku góor ki moom na taxaw ak imaam ku góor ki na tolloog imaam ku jigéen ki dem seen ginnaaw ñoom ñaar waaw moom lay wax ne ba in kaana nekk na maawuma ànd ak ak ndaw si rajulun góor sallaa na julli moom ku góor kooku an yeminil imaam yi ca ndeyjooru imaam ba wala jigéen ga xalfawuma nekk seen ginnaaw ñoom ñaar wa man salla ku julli na mu bi zawjati ànd ak soxnaam xaamat mhm. na taxaw moom soxna sa xalfahu ci ginnaawam donte soxnaam la sax bu mu wax na rek sama jëkkër la danaa taxaw ci wetam wala déedéet waaye dem féetee ko ginnaaw mhm. Mhm. mu ne wasabi yu gone in salla bu jullee maa rajulin ànd ak waay ànd ak góor waaxidin kay kenn maanaam benn góor xalfal imaam ca ginnaaw imaam xaamaa nañ taxaw ñoom ñaar xalfahu ca ginnaaw imaam ان كان ندم نك نا اصبي غونغا يعقل دي خم جامو يال يعقل دي خم ني جولي جامو يال دو فو نعم. العقل موي في القلب وانا يعقل موي خلو خلو غو نيكول لك موي كو خم كو خم تي واي مو خم ني جولي تي جامو يال لا بوك باسكو مانغا اندك غوني غو خاني كو ييو لا نا واي خمول ني جولي موم faratal manam ak jaamu yalla la mën na ci fo wala mën na taxaw ba ci kanam mu jog dem kon lolu muy xam ne ak jullikat ak jaamu yàlla la goo xam ne ni moom euh, bu ko xamee noonu daal su xamee moom du fa nekk di foo wala du julli ba ci kanam mu dem bàyyi la kon bu boobaa man ngaa taxaw ak ca ginnaawi imam yéen ñaar waaw moom lay wax ne wa man salla wa sabi yu gone in salla bu jullee maa rajulin ànd ak waay waaxidin kay kenn nga xam ne waa ji moom kottu la bu dee nag waa ji daa ànd ak keneen ak euh, xale bi moom bu boobaa amatu loolu bokkatu ci bu boobaa ñoom ñaar nañ julli xalfal imaam yi ci ginnaaw imaam قاما نتاو مملوان واحد كن خلف الامام تجنا امام قاما نتاو نيوم نار خلفو تجناهم والسبي يغني ان صلى ابو جلي مع رجل عندك واي ان كان السبي يعقل آه، آه، آه، من ان كان بو نيك السبي يغني غا يعقل دو خلو manam yaqilu di xam di xelu di xam ne jaamu yàlla la mu ne laa yezabu nga xam ne du dem waya daaw muy bàyyi man ka nga xam ne yaqifu ma nga taxaw maahu ànd ak moom kon boobaa ñoom ñaar mën nañoo taxaw ci ginnaaw imam mu ne wal imaamu imam arratibu jee aji sax al imaamu ratib mooy imam ji nga xam ne moom mooy fii moo fiy jiite nga xam ne dafa sax dañ ko faa samp muy jiite waaw moo xam jàkk la moom mooy ni ñaa ko tànn daal teg ko fa kooku mooy al imaamu ratib in salla bu jullee waxdahu moom kottu maqaamal jamaati wala qaama mu taxaw maqaamal jamaati taxawaayu mboolo wa yukrahu def na si fii kulli masjidin ci bépp jàkka loo jàkka joo ñeel na ko imaamun imaam ratibun bay aji sax an tujuma ba boole fii ci moom asalaatu julli marratayni ñaari yoon mu ne al imaamu bu fekkee daa julli moom kese mu ne bu boobaa jullim googu day taxaw taxawaayu salaatul jamaa maanaam lépp lu salaatul jamaa doon dagan ci moom mu am ko moom bu boobaa loolu da ko yóbbaale loolu nag bu ñu koy wax mooy mu fekk ne imaam boobu dafa respecté charte yi mooy waxtu yooyu ñu daan julli waxtu yooyu jot na nit ñi ñëwuñ moom mu daal di julli ndaxte waxtu yu leen daan julli waxtu woo jot na mu daal di julli waaye bu fekkee dafa patam patamee mbir ya nit ñi ñëwaguñ waxtu yu jotagul bu jullee tamit julleem nga nit ñi am nañ droit ñëwaat naayibam ba cee topp ñëw samp julleem ci ginnaaw te yooyu yu mën a indi problème na ci ay jàkk mm-hmm. maanaam ci ñàkk waxtaan wala ci ñàkk dégg wala ñàkk nangal mm-hmm. problème yu bari ci biir jàkka yi peut-être ñàkk déggoo da ciy am mm-hmm. nga koy gis ci fu nekk ba jàkka yi léeg nit ñi di ci am ay problème ay jotee ba yi xewoon fan yee gisoon nga ko mm-hmm. rahimallahu aljamia kon imam bi war naa taxawoo charte boobu noonu nga xam ne mooy fexe ba waxtu yi daan julli nit ñi nga xam ne moom lañ jàpp mu muñandiku ko léeg-léeg sax lu jar na muñandiku tuuti bu dee ñaari bi nga xam ne yàqul dara ba nit ñi ñëw léegi nag bu fekkee muñandiku na nit ñi ñëwuñ léeg-léeg mu dal jàkkee yi ki ñuy xaar ñëwut naay bam bi buñ toogee tuuti xool yurnu ko gisuñ ko naay bi mën naa jiite hmm. waaw mën naa jiite bu boobaa waaye nag bu fekkee dafa gaaw jiite te waxtu yu jotul nit ñi bu ñëwee moom mën nañoo sampaat keneen jullig mbooloo hmm. julli kenn terewu ko te bu boobaa moom imaam bi tamit amul ngëneel mbooloo hmm. parce que dafa gaaw def ko ci waxtu wax ne kenn ñëwul moom lay wanaan wal imaamu imaam arraatibu kay aji sax in salla bu jullee waxdahu moom kott qaama mu taxaw maqaamal maqaamal jamaati taxawaayu mbooloo mooy am ko ci ngëneel ak ci yooyu yëpp ci lépp dana ko am waaw te moom tamit bu boobaa comme moom kese moo julli tamit du demaat di baamuwaat ci jullit waaw du dem di baamuwaat ci jullit mbooloo ndaxte am na ngëneelu mbooloo donte moom kese mu ne nag sib nañ ci jàkka joo xam ne dañoo am imam ratib kon nga déggee ci ne bu dul jàkka joo xam ne nekkul amul imam ratib nga xam ne am na jàkka yoo xam ne dégg naa fu mel ni Màkka dew moo fu mel dañ koy nettali di wane ne ci mbedd yi oto route yu mag yi dañ fay samp ay jàkka ci yoon yi nga xam ne nii boo dawee ba ci kanam heure boo bëggee julli rek mën ngaa gaare fenn jot benn jàkk julli ci jàkk yooyu d'habitude mën na bañ a am imam ratib ndax koo samp rek pour nit ñiy dox jàkk yooyu mbooloo mu ñëw mën nañoo julli waaye jàkk ju mel nii nga xam ne dañ fay samp ay imaam kon bu boobaa daganul mbooloo moo imaam ñëw samp julleem ba pare dem ay nit yoo xam ne nii ci mbooloo yi lañ bokk ñëwaat samp waxuñ nag mbooloo moo xam ne ñoom dañoo jugee fenn tukki ñëw jaar fi rek nga xam ne jotewuñu ak mbooloo mi dara mm-hmm. li ima li lislaam di bañ mm-hmm. mooy anarchie ak jote mm-hmm. ndaxte mbooloo dañ koo samp pour jullit yi gën a mën a ànd jullit yi mën a gën a xam lante seen i problème léegi nag bu fekkee ne tey mbooloo mii nii dañoo julli ba pare yow nga jógewaat fee ak sa mbooloo loolu mën naa indi féewaloo ak xol yu tàngoo moo tax limaam di ko bañ moo tax lislaam di ko bañ waaye bu fekkee ñoo xam ne ay gan lañ jógee fële jotewuñu mbooloo mi dara mën naa am sax sequñu dara julli fekk la ñuy jaar julli seen julli dem loolu indi benn problème lislaam bañu ko kon bu imaam raatib jullee ba pare dañuy tere keneen ñëwaat di fa sampaat am mbooloom di fa julli loolu nag wax nañ ne ñu ngi koy wax mooy ñoo xam ne nii ci foofa mooy seen i bërëb wala la ñuy jullee ngir bañ ay problème yoo xam ne dana daw waaw moo xam njëkk imaam lañ fa ñëw di julli wala ginnaaw. waaw mu ne waman salla julli. salaatan julli falaa ya umm du jiite fiyaa ci moom ahadan kenn waaw wax naa ko wa yukrahu sib nañ kulli masjidin ci bépp jàkk joo xam ne loo ñeel na ko imaamun imaam raatibun jee aji julli an tujuma ba booleef fii ci moom asalaatu julli marratayni ñaari yoon wa man salla ku julli na waaye xam nga foofu loo xam ne danañuy wax sax euh, kii di imaam euh, maanaam yéexantalu ci ay mbir آه، أم لبرم قام بنا وربما فات قوما بعض أمرهم من التراخي وكان الرؤي لو عجل ما فوفر ده وحنا كمان كم إمام راتي وفي كان وقت يدفع دفع جد كرني ورا جلي ما نام نين ينعا كم يدنيو يخ بإمام جلي عندنا نبورة فضل ما نام يخ أن تلاقي وحنا باهو بني نود درك نيك ورنا قاو فخم وقت وفك كفا دخت لي غير بري يخ أن بتش أمير دفع يقنيتك بوكر نك لين يتودي حدث بيوه عمل تناقض في حدث بيوه نه al ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min allah maanaam parax paraxe bokkul ak maanaam def mbir yi maanaam am farlu ci ay mbir maanaam li ñu tuddee rigueur lépp looy def nga am ci rigueur am ci farlu bañ a yokk kook yi nga xam ne nii loo war a def ci ñaari minute nga def ci fukki minute loolu bokkul ak li ñuy wax maanaam nit ki da ngaa war a gaawante def ci li ngay def def ko ci fulla waxuñ nag parax parax yi yàkkamti loolu moom musibal foofu lay wax ne wa rubbama faata qawman baadu amrihim mu ne aw nit am lu leen ni fàtt ci ay mbir la leen koy yobbe min ak taraxi yéexantu bu ñu yéexantu waru rubba wa kana ra'yu la waajilu te bu ñu gaawon lolu ko mbir ye ya du deme non moy danañ jot lañu bëgg jot leele nit nga war ko walu di yéexantu wala nit leele nga war ko defal nangam bala ngay ñew la nga doon wut far nga ñàkk motax nit dafa wara am farlu non la borom ibnu duré di wax ne innal huwayna ribbuha innal huwayna rib innal huwayna wahnun ribbuha fajiddu fa jiddu taxmadu ribba sura mu ne innal huway naa ndànku waanun ak doxat la ribbuha ak mujjëm maanaam def maanaam ndànku ba mu ëpp mu ne foo ko fekk nit du am résultat bu baax kon nag mu ne fa jiddu na ngeen farlu maanaam am rigueur te ji maanaam taxamadu kon da ngeen sant bu ngeen ko defee ribba sura mujjëg rañaan gi maanaam lépp looy wuti nga am ci farlu am ci rigueur bañ caa yéexantu mu ne heure boo ko defee rek néew na looy wuti lu la ne da nga ci jot كن جلّي تمن ولا مل وربما فا وربما فات قوما بعض أمرهم من التراخي وكان الرؤي لو عجلوا من وإن ومن صلى جلّي صلاة جلّي فلا يأم بوم جيت فيها جمع أحدا كن من يو جلّي نعك جلّي يو كت بود ما يدي بام واتيم بولو يو من غانة كم مو واي منو نك إمام جلّي غو بعدها يو سبام غو بسنة أم نافيل هذا من إذا سها لم جمعنا الإمام إمام جمع موجوم wa sajada mu sujjoot li sahwi ngir jama jam boobu fal yattabi'u na ko topp man ka nga xam ne lam jama jut maawu ànd ak moom mi man tukkee ci ña nga xam ne xal xalfahu ñëw ci ginnaaw hmm. mu ne yow danga doon da ñëw fekk imaam nekk ci dernier rakka wala ci ñaareel léegi nag yow ñaari rakka yooyu noonu nga fekkee wala benn boobu leer na la ne imaam juumu ci kon imam bi mu juum amaat na yow sa premier ba nga tardé woon la mhm. wala deuxième ba nga tardé woon loolu sa yoon nekku ci bu imam di sujjóot da war a sujjóot daal doon te yow sujjóot jamaj boobu noonu fekku mhm. comme yow am nga benn am nga benn am nga ab fekkee nga ko rek kon bu boobaa bu imam di sujjóot yow war a sujjóot moom lay waraam ida saha ndem jamañ na al imaamu imam wa sajada mu sujjóot li sahwihi ngir jamajam boobu fal yattabiu na ko topp ca sujjóot ba lolu nak dafa war man ka nga xamne lam ñes bu jama jut maawu ànd ak moom mooy fekkeewul njum te ba mi man bok tukkee ci nga xamne khalfa xalfa wu ñu ci ginaaw imam wa kon nak rawati na ko xamne mom fekke na jama boobu bobu non mune wa yarfaaw wala yarfaaw kon wala yarfaaw daganul muy yëkkati ahadun kenn rësawu bopam dafa haram sax qabla al imaami njëkk imaam wala yafaalu du ko def illa baada fiili du def illa baada fiili غناو جيفي امام الا بعد في فعله لودول غناو جيفي امام مو دافا حرام سي كو خامتيني ني مانام دافا نيك اب ماموم موم موي نيكا جيف اب امام اي جيفم بلا امام بلا غي سجود نا فك امام سجود با بار بلا غي سيغي نا فك امام سيغي با بار كون لولو لو متا باي خيل Mm-hmm. waaw li ñu doon wax ci wàllu sujood bi koo xamante ne nii fekkeewul jamaju imam bi foofu boo xoolee ci sharaab mu ngi leeral lu am solo mu ne bu fekkee nit koo xam ne dañ koo raw dafa jot benn rakaa wala lu ëpp benn rakaa mu ne sajadal qabliya qabla qadaai qabla qadaai ma alayhi walaw tarakahu imaamuhu wa sajadal baadiya baada qadaai ma alayhi wa baada salaamihi mu ne bu fekkee ne yow da ngaa jot ab rakaa wala lu ko ëpp mu ne da ngay sujjoot al qabliya maanaam sujjoot ab qabla da nga koy sujjoot ànd ak imam waaye nag sujjoot ab baada moom bu ko sujjoot maanaam da ngaa ñëw fekk imam def luy waral sujjoot ab baada léegi yow nga dese ay raka bu imam sëlmalee ba pare di sujjoot yow bul sujjoot jugal nga mottali boo paree sujjoot boobu noonu imam doon sujjoot yow nga daal di koy dooru sujjoot bu dee qabliya ba nag moom da ngay ànd ne bu fekkee nag jotul ab raka maanaam yow amoo lu mat ab rakka sujjóot nga fekkee dernier sujjóot bi wala taaya mu ne bu boobaa doo sujjóot sujjóot xabla ànd ak imaam doo sujjóot sujjóot ab baada ànd ak imaam loolu lu jërë bàyyi xel moom lay wax Cheikh Khalil ne wa bi sujudil masbuqi maa al imaami baadiyan aw qabliyan in lam yalxaq raqaatan wa illa sajada walaw taraka imaamuhu aw lam yudrik mujibuhu wa axara al baadiya mu ne kon nit ki bu mu def ab jëf lu dul ne imaamam daf koo def ba pare mm-hmm. wa yaftatixu mm-hmm. waaw xam nga am na ay mbir yoo xam ne moom boo ci jiitoo sa imaam sa julli day yàqu mm-hmm. am yoo xam ne boo ci tolloo ak sa sax sa julli day yàqu am yoo xam ne boo ko ci jiitoo du sa julli du yàqu doonte def nga lu xaram euh, moom la woykat bi de wax mu ne am na ñeenti mbir yoo xam ne daa bokk ci déggu fiquk imaam bi wa arbaun تعد من فقه الإمام سرعة إحرام وسرعة السلام دخوله المحراب بعد أن تقام تقصيره الجلوس أول يراب خمغا دافلا واخني داغن الماموم بي دي ديف اب جيف دا حرام تي ماموم بي موي نديك جيف امام بي اب جيف مو خام تي ديم جيلا مو خام تي سيغي جيلا ديغي نا كون امام بي كوم يوي نونو موم نون لا تنكي ماموم بي امام بي ورنا غاوان تي مير يو خامتاني لو ملني كبار حرمه kabaaru xarmal bi boo ci njëkkee tàmbali sa imam même bu la imam bi mujjee tàmbali njëkk laa yeggal sax sa julli baaxul xaram boo ci tolloo moom moo xam moo la njëkk maanaam yéen ñaar ngeen tàmbalee noo moo xam imam moo la njëkk daaneel moo xam yaa ko njëkk daaneel sa julli yàqu bu la imam njëkkee tàmbali nga njëkkoo yeggali tamit sa julli yàqu kabaaru xarmal fenn rek lay wéree kon mënoo cee tolloo ak sa julli di baax mënoo ko mënoo koo njëkk tàmbali sa julli di baax mënut laa njëkk tàmbali sax yow nga jëkk koo yeggal sa julli di baax kon kabaaru xarmal feñ na rek lay wéree ci ab ma moom mooy imaam njëkk koo tàmbali njëkk koo yeggal ba pare mu door a tàmbali kon loolu nag moo war a tax imaam bi kabaaru xarmal bi mu war cee gaaw parce que am na nit ñoo xam ne xamuñ seen diine dañuy gaawante rek buy imaam di kii rek ñoom balaa mën a allahu akbar sax am na ñoo xam ne sax ñooy njëkk a kabaar imaam waaw buy waajal liqaam ba pare bu imaam ah rek ñoom kii nañ kon nag imaam bi warul nekk foofu di xëcc na allah pour mu jël temps hmm. sinon am na ñoo xam ne mën nañ koo njëkk a yeggali parce que dañoo bat hmm. moo tax imaam bi nag gaawante rek ne hmm. ñi nga xamante ne amaat na mën nañoo tàbbi ci loolu sinon ñu ngi julli te fekk li ñuy def dara baaxu ci moom lay wax ne bokk na ci fiqu imaam ñeent yoo xam ne danañ ko ci xool muy wane ne ku dégg fiq la mooy suraatu ihraami gaawal kabaaru xarban wa suraatu salaam sëlmal tamit moo kii kabar xarmal ñoo bokk at boo ko njëkkee tàmbali boo ko njëkkee yéegal boo ngeen ci tollee su jul day moo tax sëlmal bi gaaw rek asalaamaaleykum bu gaaw pare nit ñi euh, mën a mucc ci jaaxle googu noonu bokk na ca duxuluhul mihraaba dugg gi imaam bi di dugg mihraab mu xaar bañ liqaam ba pare maanaam dafa war a taxaw ne bu mu dugg ci biir mihraab bi lu dul ne dañoo liqaam ba pare mu war a dugg rek kabar xarmal waye dem taxaw ci mihrab bi di xaar imam di xaar nit ki liqaam ba bare lolu bogul ci fiqhu imam kon bokku na ci dafa wara taxawé ne buñ liqaamee ba bare mu doro dugg na le doro le doro ki kon lolu bokku na ci yiñi lim motax mu ne dukhuluhu duggug imam bi al mihrab mihrab ba an tuqama ganna buñ taxawalé taqsiruhu al julus awwal yuram bokku na ci fiqhu imam bi tim tayam bu njëkk bi gëna gàtt tayam bu mujju لولو bokk na ci koo tax تعد من فقه الإمام سرعة إحرام وسرعة السلام دخوله المحراب بعد أن تقام تقصيره الجلوس أول يرام موني ويقوم دنا تخاو ويفتتح بعده من ويفتتح دنا اوبي مم أمم بي بعده تجنا إمام wa yaftatihu dana ubbe baadahu ci gannaaw imam yaakaar naa loolu bind da wa yaftatihu baadahu waaw wa yaftatihu dana ubbe baadahu ci gannaaw imam maanaam bu imam kabaara xarmal ba pare waa léegi yow nga door a commencé kabaar xarmal wala wa yaqumu dana taxaw ba tey ministre na tey ni tukkee ci ñaari raka baada qiyaame gannaaw ak taxawam mooy bu imam taaya taaya bu njëkk ba pare ba taxaw jodd nga door a jóg yow tamit ويسلم دون سلم البتاي بعده بعد سلامي جنا سلم الإمام من وما سوى ذلك يرلي مي ملم كبار حرم الباد آه، سلم الباد جوجو نيار البتا من يرلي فواسع دغان لا ان يفعلوا مو دفكو ماو عندك امام موي تولوك موم وبعده اك امام تامي واي وبعده كون غيناو امام احسن مو غنا رافت من يرلي موي ànd ak moom rukoog ànd ak moom si ak yooyu noonu nga ciy toll ak imaam mu ne boo ko defee dagan na waaye nag li gën a rafet te gën a baax mooy ab imaam dañ koo wut pour nga roy ko ak ah, imaam mooy pour nga roy ko waaye du wut pour nga tolloog moom waaw du wut pour nga tolloog moom kon li gën mooy nga kii léegi nag bu dee kabaaru xar bu dee jug ci taxawaay boobu noonu bu ñaareel maanaam imaam taaye ba pare premier taaye bi jóg taxaw foofu lay wax ne bokkul boo tolloo woon ak imaam ci sëlman wala nga tolloo moom ci kabaaru xarma du benn bu fekkee ne imaam day jóg nii ci deuxième raka bi rek bi mu taayee ba pare di jóg nga tolloog moom foofu lay wax ne fa saa saawaahu kuriha bu fekkee ne da tollook tolloog imaam ci ñaareelu raka bi di jóg def nga luñ si bu fekkee nag da nga koo jiitu waa def nga lu xaraam dañ ko tere def nga lu xaraam waaye xaraam na ci moom nit ki muy njëkk a sëlmal imaam manam muy sëlmal lulul dul gannaaw sëlmalab imam bi bu fekkee dafa jiitu imam bil ihrami wa salami walaw bi harfin aw sawahu fil bad'i walaw khatama ba'dahu batal salatu kon ñett yim lim fi ni da yoy dañ ko tere benn bi mom yàqul julli manam juk ci ñaarel rakkaa bi nga tollo ci imam wala nga jiitu ko ci lolu yàqu sa julli de benn bi bu fekkee ne da ngeen a tolloo def nga luñ sip bu dee nag da nga koo jiitu def nga lu xaraam waaye bu dee sëlmal ak kabaaru xarmal moom sa julli day yàqu boo jiitu la boo ko jiitu moom la wax ne wa kullu sahwin bépp jamaj sahaahu nga xam ne jamaj na ko almamumu mamum fal imaamu imaamam yaxmiluhu dana ko gàddu anhu walis ko njuumte bi nga def nga xam ne lu ñu war a sujootal la moo xam alqabli moo xam albaadi mu ne comme yow am nga imaam imaam moo lay gàddul ñaan ko am ko du du lakk illa rakaatan ba mu des ab rakan ab rukon ba mu des ab aw ab rukon aw sajdatan foofu sax mën ngaa wax rukon wala rakan tamit ab rakan imam du la ko gàddul waaye foofu rukon la ci nam illa rakatan ba mu des ab rukon aw sajdatan wala sujud lii di ponk yi maanaam ay ponk imam mënu koo gàddul kenn hmm. ponk imam du ko gàddul kenn xanaa lu mel ni jàng te wax nañ ne am na sax ci yenn ngir yi wax ne maanaam lii di faatee nit ki da ko war a jàng hmm. waaye dañuy li ci mazhab Malik imam buy jàng waxoon nañ ko ci ginnaaw sopp nañ nga jàng bu dee julli bu dee julli yalu la mm-hmm. dañ ko sopp rek waaye bu dee julli biral la sax moom dañuy bëgg nga nga nga déglu kon bu dee rukon la wala sujjóot moom bu fekkee yaa ko bàyyi lu tax nga bàyyi ko nekk nga ci ay mbir ba mu tax nga fàtte loola loolu imaam du la ko gàddul aw takbiratal ihraami wala kabaaru xarman aw salaama wala sëlmal wa atiqaada niyati ak fas yéene alfaridati gay farata yooyu imaam du ko gàddul kenn nga ñëw kabbaar war a yéene ne julli gi damay julli julli ko farata roy imaam bi yooyu imaam mënu koo gàddul kenn yooyu moom boo ko yàqee rek bu dee kabaaru xarman wala lii di sëlmal wala yooyu sa julli day day yàqu bu dee ne rakkaa la wala ruk rak kii la rukon la wala sujud da nga koy remplacer mu ne ba ida sallama bu sëlmalee al imaamu imaam fala yasbutu bu mu sax baada salaam yi ca gannaaw sëlmalam ba wal yan sarif na wëlbatiku na soppeeku na fa jóge maanaam ca bërëb boobu mu toogoon maanaam jógee gi mën na faa jógee comme mën naa tourner ca mazhab Maalik dañuy wax ne liñ bëgg mooy imam bi na tourner anam gu mën a tourner baax moo xam day tourner jàkkaarloog nit ñi moo xam day tourner wetu ndeyjooram moo xam day tourner wetu càmmoñ li tax loolu bokk na ci àll dañuy wax ne nit ki ñëw dugg si xam ne kat moom imaam bi pare na ci julli gi xam ne yeneen àll yu ñu ci wax tamit waaye ki dugg si daal li gën a wér moom mooy bu ñëwee rek dana xam ne imam bii nii moom pare na ci julli gi waaw Euh, wax nañ ne bu dee këram la moom nga xam ne moom kese mooy julli loolu amul amul problème waaw mhm. euh, mu daal ci teg mu ne illa an yakuna lu dul dafa nekk fii mahallihi ci bërëbam fa daalika loolu kon bu boobaa waasiun lu dagan la loolu mooy lan bu dee imaam bi dafa nekk këram wala mu nekk ci ab àll boo xam ne moom moo fay julli wala yu mel ne mu ne fa daalika mooy toog boobu noonu ci place boobu muy mihrab gannaaw bu mu sëlmalee fa waasiun mooy lu dagan la mooy kenn sibu ko kon loolu moom waa imaam mën na ko def mm-hmm. maanaam buntu bi jeex wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam